asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte di fas yéene taxaw ci benn tomb boo xam ne mi ngi soxal benn soxaabiyu bu mag te mooy jëmm joo xam ne bokkoon na ci àndandooy yonente bi sallallahu alayhi wa doon dundandoo ak moom doon weesoog moom ay suba aki ngoon xam ci moom ay mbir yu bari waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon ko joxoon ko cër tey nag taxaw bi ñuy taxaw ci dundug jëmm ju sell jooju day yore xarkanamu baatin day yore tolluwaayu baatin muy dimension mystique bu am solo muy al wala al janib fi xayaati hada saxaabi al jalil al mad'uwi bismi Xaalid ibn al mbokk yi bu ñu nettalee ba ci cëppaandaw ga incha dingeen xam tomb bi ñu gën a yitteel ci waxtaane Xaalid ibnul Walid incha allah di ngeen gën a xam aussi dimension mystique bi ci nekk muy keroog bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa tànnee moom Xaalid ibnul Walid yónni ko ci waa banu kaab ibni najjaar ngir mu yegge fa lislaam ngir mu euh, lever leen benn coin di voile ci lislaam gindi leen ci lislaam jàngal leen xamal leen dara ci lislaam ndax léeg-léeg nit téye boppam ci mbir fekk bañul mbir ma sax waaye da ko da ko réere wala dafa am yum ci réere bu ko defee suñ ko xamalee mbir ma wala ñu xamal ko yem réere ca mbir ma rek mën naa am mu commencé di xemeem mbir ma te xemeem teef gi su yàggee rawatina muy gën a yokk mën naa indi soobu moo tax ya moom moom moom Xaalid ibnul Walid yonent bi sallallahu alayhi wa da ko yónni ci waa bani Kaabu ibnu Najjaar boole ko trois cent soldats muy ñetti téeméeri xarekat ngir mu woo leen ci lislaam mu dem am fa ñetti fan waaye bis bi mu xëyee bay waxtaan ak ñoom ginnaaw ñetti fan yooyu mu daal leen di gaaral li nga xam ne mooy yéeneem muy wan leen lislaam présenté leen ko wax leen ne diinay jàmm la diinay mbokkoo la diinay jaamu boroom bi la diiney e, jubook moroom yi ci mbaax wax wax ay mbir yu bari ci lislaam ñoom itam ñu sàkku ci moom lenn seen réaction mooy dañ ne ko yow de kilo la ni mësuñu koo gis xamuñu ci ay jikkoom lu bari kon nag wax ñu lenn ci moom wax ñu lenn ci moom defal ñu description wu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen jërut may def description ci ki may yónni ndax su fekkee bala ngeen a xemeem li ma leen di présenter rek dama leen di wax ki ma yónni kon day mel ne ki may yónni message bi muy véhiculer des naa dese naa impacté ci man day mel ne am njàngaleem daal lim war a saafara ci man saafara ko ci man lim war a jëmbat ci man ci ay jikko yu baax jëmbatu ko ci man lim war a sempi ci man ci ay jikko yu safaan sempiwu ko ci man kon au lieu que ma leen di xamal ki ma yónni naa leen présenté sama bopp xool leen ma rek lu nekk ci man rek kookoo ko def ci man su ko defee bu ngeen gisee ci man lu leen doy ngeen xam ne li ma leen wan nag lu ko ëpp fuuf ma nga ca kama yónni ñoom itam ñu xalaat nan lañ koy teste <clears throat> ñu ne waaw ki koy yónni li wax du lu ndaw li wax du lu ndaw de waxul ne moom ab buur la waxul ne chef de l'État la waxul ne euh, chef de tribu la waaye dane yonente bi yàlla la yàlla mi sàkk mbindeef yépp moo ko yónni a ah, nga présenté ñu message bi ñu war laa testé duñ la testé nag ci lu yomb mukk duñ la teste mukk ci mbirum saxiiru àdduna ci mbirum baatin lañ lay teste ndax yàlla ay mbiram kenn du ko natt ci zahir ñu xalaat nan lañ koy testé ba ñu xalaatee li njëkk a ci seen xel mooy nañu togg aw ñam wu neex bu doon fii ñu ne tufe walla ay salaad wala ñu togg ay omelette wala ñu togg ay méchoui en tout cas daal togg ay plat yu neex ñam yu xéewale te bakkane waaye nag la muy xéewale xéewale am na lu carax waaw muy poison li ñuy wax tooke walla posan am na posan buñ carax waxkat ba waxoon ne wala yaxurranka manta tabdu bashaashatuhu minhu ilayka fa inna summa fi dasami waaw am na ku woon itam fa inna summa fi asali lem kay neex na waaye suñ ca defee poison rek sabote nañ ko waaw waaye kon ñam wala muy neex neex daal ndeke am na tooke am na posan waaye nag yëgaluñ Xaalid ne ko ñam wa am na posan moom waaw dañ ne ko daal kon ginnaaw gan nga dinañ la ganale fekk lañ ko nar a ganalee nag ca lañ koy testé toggal nañ ko ba mu neex waaye nag def nañ ca posan ñu waxtaane ci seen biir foo xam ne xaalit fekkewul yëgul ne léegi ginnaaw nee na ki koy yónni ndawul yàlla la léegi nañ ko testé ci ñam wii def nañ ci posan léegi nag ñetti hypothèse yi rek la teg ñett yi rek lañuy teg waaw su fekkee euh, ki ko yónni nekkul ci dëgg li muy woote itam teguwul ci dëgg su ko lekkee faatu mu noppal ñu mu noppal ñu ci di ñu tànqal ak di ñu sonal ci woote loo xam ne véhiculer message boo xam ne porté wul sur la vérité message bu dul dëgg kon mooy su ko lekkee faatu kon dañuy noppal kooku mooy thèse bu njëkk bi beneen thèse bi mooy su ko lekkul su ko lekkul ñu xam ne wóoluwul boppam kon duñu dugg ci lislaam su ko lekkul dañu xam ne daf ñoo bàyyi ci lënt daf ñoo bàyyi ci lënt ay mbiram leerul kon duñ mën ne dëgg la duñ ne du dëgg kon duñ ca dugg itam waaw e su ko lekkee mucc maanaam su fekkee da ko lekk ba noppi faatuwul deseeg bakkan di dund nekk ci jàmm dara daru ko dara dalu ko waaw kay ñu soog a nangu ne kii li muy woote dëgg la kon teg nañ ñetti mbir ñu xool ba xam nag Xaalid ban la ciy jël te ñetti mbir yi benn rekk moo ci arrangé moo nekk en faveur du message te su ko lekkee te faatuwul waaye bu ko lekkee faatu kooku entrave la ci message bi bu ko lekkul itam entrave la ci message bi kon pour mu réussir mission bi nga koy doxloo muy eh, yaatal islam propager l'islam faw mu lekk ko ba noppi ne cocc lu wokkul ab dërëm du ko wokk ñu xool nu xaalis di def ñu indi ñam wa allahu akbar bi ñu indee ñam wa taajal ko ko soog koo wax nag li ci xew soog koo wax li ci xew ne wo ñam wi nag dafa am tooke de dafa am tooke lii lañ lay testé ba xam ki lay yónni li muy woote dëgg la wala déet ndax dañ laa wax ne la décriral ñu melalal ñu présenté ñu ki lay yónni nga ne jëru kon nañ ko natt ci yow rek ñu ne kon yow itam nañ la natt ci tooke ji ci ñam wi ñam wi dañ cey def poison de ci lañ lay tes testé nag dañ cee def poison léegi nag ñett a fi nekk benn nga lekk ko faatu soo ko lekkee faatu nga noppal ñu ñu xam ne li ngay woote du dëgg nga noppal ñépp wala nga bañ koo lekk soo ko bañee lekk itam danga ñuy bàyyi ci ay dut danga ñuy bàyyi ci ay sikki sàkk ci lënt su boobaa duñ la topp lii tax ñu topp la daal mooy nga lekk ko ba noppi ne cocc di dund dara lu wokkul ab dërëm du la wokk xaalit ibnul walid daal ne taaj leen ñu taaj mu ne indi leen raxasu ñu indi raxasu ba muy raxasu ñépp a nga tiit ñépp a ngi tiit mel ne ku toog ci nen ne ay xaalit te nga bañ a lekk lii lii dafa am tooke soo ko lekkee ba faatu nit du rey boppam nit du xaru bul sacrifier sa bopp xaalit ne incha allahu rabbi day dinaa ko lekk Xaalid ba mu raxasoo ba set jege ndab la wax bismillah wékk lépp ca yàlla ànd ak nag benn certitude bu nga xam ne benn croyance absolue boo xam ne gëm na ne rek yàlla dina ko ci muccal <laughs> waaye keroog da ba mu raxasoo ba wax bismillah yor loxoom ca ndab la ñu gis muy tibbi sex di jàllale te bii seex di jàllale te onkul raful yuuxuwul gaññul wonewul benn màndargam njàqare benn signe de tristesse wanewu ko ñu ah moom kan mbir maa ngi koy bëgg a jig muy lekk di lekk di lekk ba lekk la mu soxla daal di sippi loxoom génne loxoom ca ndab la raxasu ñu jox ko ndox mu naan di sant yàlla te dara dalu ko ñépp yéemu ndax loolu kuñ ko masaana jox bu ko masaan a lekk ci tooke yooyu nga xam ne mooy yi gën a grave bu ko masaan lekk du toog une de temps wala trente minutes wala quinze minutes wala lu ko gën a néew te faatuwul ba mu ko lekkee te dara dalu ko dara soppeekuwul ci moom ñoom ñépp nag ñu daal di soog a signé soog a nangu soog a xam ne nag kii li muy woote dëgg la ki ko yónni itam ci dëgg la taxaw ndawul yàlla la ci lu amul benn sikki sàkka ca noona ca la waa banu Kaab ibnu Najjaar dugge ci lislaam dugge ci lislaam waaw moo tax ñu ne baatin moo raw bëti neen te Xaalid ibnul Walid baatin la wane te baatin bi itam dafa dëppook sariya ndax wanewul baatin pour ñu gëm ko wanewul baatin pour ñu di ko jox ay alal waaye da ko wane rek pour gën a dëggal message yu lislaam pour bëgg nit ñi itam jariñoo ci njàngaleem sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon baatin boobu bu positif la le seydi xaaj malik waxoon nag ne wa baatinun lam yuwaafiq min shariatina faktubhu billaami laa binnuuni kalfatini kalfatini waaw Seydi Hadji Malick nee na baatin bi saf xorom daal baatin bi jara nawe nit mooy baatin bu dëppoo charia boo xam ne da ngay wane miracle pour intérêt pour l'intérêt du message de l'islam da ngay wane miracle baatin pour xemeemloo nit ñi l'islam pour gën a gëmloo nit ñi pour gën a yokk kóoluteg nit ñi bañ gëm ne lislaam ay dëgg yàlla rek mooy buur bi nga xam ne moom lañ war a jaamu kenn waru koo bokkaale ak lenn wala dara wala lu mu mën a doon waaw waaye nee na kay su fekkee dëppoowut ak sharia Seydi Haaji Malik bul bind baatin ga araf ba mujj bul ko def nuun nuun ga ca mujj na ko remplacer laam soo ko remplacer laam au lieu que mu doon baatin day doon baatil la te baatil nag mooy ay neen Xaalid ibnul Walid kon wanewul baatil mais baatin la wane ci kàttanu yàlla Eh, ba ñu delloo ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Xaalid ibnul Walid ak délégation ba mu àndaloon ñu nettali ko nag li xew xamal ko ne ko waa banu Kaabu ibnu Najaar de dugg nañ ci lislaam waaye nag dañoo tegaloon Xaalid benn épreuve waaye réussir na épreuve bi te ña ngi ko jaare ci posen yonente bi sallallahu alayhi mi nga xam ne yàlla xamal na ko lu ne lu bëree bëree bëri luy ump ñu bëri yàlla da ko koy xamal keroog ca la indi benn njàngaleem baatin mbokk yi lii lu mat a déglu la ca la yonente bi xamle ne képp ku ñu tegalati ñam woo wóoluwul woo xam ne da ngay jàpp ne ñam wuy lore la wala ñam woo xam ne def nañ ci luy yàq wala def nañ ci poison wala tooke wala posan ak liñ ciy ragal li nga ciy ragal lu mën a doon jarul may tudd yenn yu bëri mais kenn ku ne yaa xam la ngay ragal ciw ñam suñ la taajalee ñam woo wóoluwul bu la neexee mën nga koo lekk te dara du la ci fekk waaye nag nekkul ne dangay ngay jékki rek dugal sa loxo di lekk de déedéet mu ne kuñ taajalati ñam te wóolu ko nga bëgg koo lekk te dara du la ca fekk jenn lor du ca juddoo bala ngay lekk waxal bismillah xaalid ibnul walid ma baamtuwaat ko bismillah xaalid ibnul walid bismillah xaalid ibnul walid ñam wuñ la mën a taajal ak lan cay ragal lu mën a doon moo xam def nañ ko ca ak defuñ ko ca ci kàttanu yàlla su fekkee am nga mat gu toll ne ak teey gu toll ne bala nga ca yàpp sa loxo di tibbaka sex rek wax nga bismillah xaalid ibnul walid ñam wa lu ca mën a nekk incha allah di nga ca lekk ba suur këll te lu wokkul dërëm du la wokk jàmm nga ci jële salaam nga ci jële yërmaane nga ciy jële mbokk yi ñu ngi leen di tàggoo fii di leen ñaax ngeen abonewu ci seen YouTube bii di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter ak di aimer ndax fa la njëriñ yi di gën yaatoo jaa ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.